asalaamualeykum mbooloo mi maa ngi nuyu ñëpp kenn ku nekk ci turam ak ci santam tey nag mbégte mu rëy rëy laa am ndaxte biñ fiy dajale nit ñi ci mois de mais bee nu génn tey lii nu am ful na ko ñett wala ñeent wala juróomi yoon kon wane na ni sénégalais yi am nañ pas-pas ci li ñuy def am nañ taxawaay ci li ñuy def kon nag maa ngi nuyu kilifa yi fi daje yëpp. di ko teg ci loxo sunu coordonnateur Ababacar Mboub mu jàllale ko ci ñëpp ndax mu matale ndaxte temps bi xat na te mënuñoo lim waaye damay wax ci turu ànd sàmm ji koy nga xam ci laa bokk waaye di wax ci turu jàngalekat yi nga xam ni g dafa ñëw ak délégation ñëw wax Sénégal ni ñun li ñuy sàkk mooy ñu criminaliser ngóor jigéen ci Sénégal bu ko defee képp ku mi def yëfi góor jigéen ñu tàllal sa nuunara loolu la Sénégalais yi bëgg parce que nag réew mi ñun ñoo ko moom président Macky Sall doonu ko ci ay waajuram doonu ko ci ay maamam kon amul droit kenn fi def loo xam ne teguñu ko ci yoon kon li ñu wax mooy ñun Sénégal li ñuy exiger mooy képp koo xam ni jàmm moo ñor Sénégal moo ñor nañu tere lii nga xam ni moom la député yi bëgg a def maanaam jaay ñu doole loi bi ni ñun proposition de loi am nañ droit def ko ñu dem dem ay tappale daal di rejeté proposition de loi bi alors que kenn may leen ko lay na ñun sénégalais yi nañ leeral document bii ma yore na ko presse bi génn document bii ma yore Macky Sall nee na góor jigéen du law senegal léegi li mu wax da koo wax pour nelawal sénégalais ndaxte école bi fa lañ bëgg a jaare comme fa la tout tànk yi nekk ñu daal leen waajal pour ñu nekk ay góor jigéen document bii ma yore mi ngi tudd genre et inclusion dans les pratiques de classe président Macky Sall moo ko bindu lu ministère de l' éducation nationale Mamadou Talla ñu ànd ci ak plan international pour ñu lawal ngóor jigéen ci Sénégal pour ñu lawal ngóor jigéen ci classe yi kenn du ko fi nangoo kenn du ko fi nangoo tey kenn du ko fi nangoo ëllëg kon jàngalekat yi document bii ma yore képp ko mu ñëw sa école na nga ko xotti te sànni ca àll ba parce que góor du law Sénégal leen bëgg a wax nag falaay daaneele falaay daaneele sénégalais yi bu dee dun li ñuy wax dëgg la ci te ñun di bëgguñu góor jigéen law Sénégal assemblée nationale bi du voté proposition de loi buy tere góor jigéen Sénégal élection législative yi ñu jëm nañ leen dàq ca àll ba fa lay député yoo xam ni